que lu mel en 2012 biñ euh, maître Abdoulaye Wade parce que gis nañ euh, Sénégalais des fois day def votre sanction est-ce que nekkul sanction lañ def ni loolu moo tax euh, am écart bu bi. dafa am projet de société bu nga xam Ousmane Sonko daf depuis longtemps di ko revendiquer devant l'Assemblée nationale di ko devant les Sénégalais di dem ci kër yi di ko wax di di ko wax man dugg ci euh, cubaleel fu nekk ñu dem fa njum dem ànd ak euh, ay nit di visiter nit ñi mais bu ñu demee ci vacances citoyennes euh, agricoles yi les VAP là vacances agricole citoyenne mais loolu dañu mujjoon bu ñu demee waxtaan ak nit ñi mais waxtaan boobu projet de société bi lañ doon jaay projet de société boobu boo ko jaayee dafay wër àddina bi parce que léegi nous sommes à l'ère du numérique xam nga bu fekkee nekk na njum nekk ci biir tool ya ñëpp xam ni kii mi ngi patauger dañuy soloon ay dal yu gudd yu yam fii di patauger di dem di xool tool yi di xool euh, production bi malheureusement loolu sax naroon na dem ci bilan au Macky parce que agriculture bi mënoon nañ ko gën a développé waaye moom daf ñu def les bâtons dans les roues te loolu yëpp dafa indi li tax moom mu échoué mais Ousmane Sonko ku ko xam-xam ni c'est un patriote man dama doon wax toujours il y aura une révolution citoyenne patriotique engagée et responsable loolu moo ñëw actuellement je crois que les politiques sont en avant par rapport euh, je veux dire la population est en avant par rapport aux politiques nit ni ñu ngi def politique mais au fond population bi ni ñu yeewoo ñoom yeewoowuñ ko te loolu nag moo war a continuer dañu bëgg population bi tey ni ñu àndeek ñun ba indi victoire bi ñu ànd ak ñun ci loolu ci liggéey nit ñi di teel a di yéex a ñu xam Sénégal c'est un pays sous-développé ñu xam aussi du baguette magique rek la ñuy développer Sénégal Sénégal Sénégalais yi encore développés. Mais nous avons ñun avantage mooy lan suñu njiit yi ñuy fal dañu jub xam nga njiit bu jubee ñëpp dinañu nangu fay impôt njiit bu jubee ñu bari dinañ nangu liggéey mais bu fekkee ni yow da ngay liggéey golo bay baabu ndi dunde mais kenn ñun ñu dañu découragé moo je crois que loolu moo amoon mais léegi jeunes yi ñu ngi leen di dellu ci réew mi jël ay poste liggéey ñi am xam-xam ci gouvernement liggéey mais ñi amul xam ci loolu ku nekk ñu wutal la dans le secteur privé nga mën a liggéey dans les entreprises euh, l'entrepreneuriat ñu xoolaat ko bu ko defee loolu dina tax Sénégal mën a jëm kanam suupa en tout cas li ñu mën a garanti mooy détournement ak yenn a moom daf de jeex corruption concussion achat de conscience de fidèles. jeex dañ combattre xëy na du taxaw ci saa parce que population bi dañu bari te population bi ñu bari ku nekk ak sa jikko mais progressivement nous allons enrayer tout ça. J'ai toujours dit à trois mois de la fin du mandat il doit évacuer les affaires courantes et cesser de prendre des décisions warul jël ay décisions parce que dafay gêner ki nga xam ne day par éthique administrative par déontologie administrative dafa war suspendre tout ce qui est domination, tout ce qui est véritablement euh, emploi. Parce que dès RTS qui a euh, non seulement ils ont fait des augmentations de salaire exorbitantes mais ils ont recruté en masse alors que l'on on doit libérer les affaires courantes Je def naa l'administration administration 30 ans Vous faites ne que nga directeur d'école par exemple nga dem bay retraite wala nga dem bañ affecté la da ngay libérer les affaires courantes mais doo jëlaat benn décision même bu ñu lay interpeller si certaines choses da nga leen di wax attendez mon mon successeur bu ñëwee véritablement dina le problème donc c'est inélégant de la part du président Macky Sall je le dis parce que je n'ai pas froid aux yeux de dire la vérité. Mm-hmm. am na ci loo xam ne aussi mënuñu koo ñàkk wax parce que gis nañu à chaque fois day revenir ci débat yi nga xam ne dañ koy animer muy côté vestimentaire euh, du nouveau président tey yow ban concept ban euh, aperçu ngay def ci loolu. dafa am euh, ku ñuy tuddee cher Anta Diop ñëpp xam ko tey sam papa moo ma ko doon expliquer xam naa fekkewu ma ko moom dañ ko invité tubaab yëpp toog foofu wër di ko xaar mu sol chemise takk ko ci suuf ñëw ñëpp ni ana Cheikh Anta Diop ñu ni ma nga nee toog ñu ni tubaab bi yëkkati ni waaw première question waa Cheikh Anta yow nii nga mel ak niñ lay dégg fépp yow nga ñëw taxawe nii sol lii nee na mun leen li nekk ci nit bañ koy tudde nit nekkul ci yëre yu muy sol mooy l'habit ne fait pas le moine c'est extrêmement important sëriñ si gën a mag ñi nga xam ni véritablement dañ leen di yaakaar boo ñëwee mën nga leen romb ci garab gi ñëw laajte leen ca biir parce que dañuy woyof loolu bokk na ci modestie te wax na ko humilité donc ay yëre yu ñuy wax port vestimentaire moom jëlagul sax réew mi boo jëlee réew mi dina am ñu lay solal di la wax defal nii di def mais loolu moom soxalu ko carrément li ko soxal mooy développement Sénégal ñiy sol nañu continuer di sell rek di dee xaalis réew mi di sol rek ñun de solu ñu développement moo ñu soxal. Mm-hmm. tey lan lañ mën a xaar ci yéen. li ñu mën a xaar mooy li ma la wax. Mm-hmm. mooy ñu am sérénité. mooy ñu bàyyi mumbaay beeg xumbaay beeg lumbaay bi nañ ko teg fële loolu daf ñuy tardeel ñu bàyyi tàggaate bi gis ay nit yu nga xam ni véritablement.

c'est des traditions nous devons quand même nous wàññi nous waxuma mu mais nous wàññi quand même parce que dañu nek ci liguey dañu nek ci lu nga xamni dafa wara développer dañu yoni yàkkamti ñu kon taluñu di taxawal li ñu tal moy di liguey guddi ci suba ngol toujours travailler encore travailler mais travailler méticuleusement travailler en ne détournant pas travailler dans le sens de faire avancer les pays travailler pour que les jeunes puissent avoir n'est-ce pas euh, ce qu'il faut comme emploi parce que aujourd'hui le monde traverse une période extrêmement difficile donc pour nga génn ci fokk nga def ay alliance stratégique suñu digganteeg France ñu changé ko suñu digganteeg yenn euh, compagnie pétrolier suñu diggante ak ni ñuy exploiter suñu ressources. or bi ñu seet nu mu demee bu ko defee loolu yëpp bu fekkee ni ki jiite moom li ko soxal du ay yëre yu rafet du kër gu rafet noonu nga koy gisee nag yëre yu rafet soxalu ko xamal ni kër gu rafet noonu la ko ñàkk soxale xamal ni ay richesse noonu la ko ñàkk xamal soxale ku mel noonu c'est un philosophe ku mel noonu dafa am stratégie bu muy teg pour dox waaye ñi mu àndal ñëpp nañu roy ci loolu bu ko defee ñu roy ñoom ñëpp ci Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko il a fait ce qu'on appelle le désintéressement dans l'action politique le volontarisme